ay biir bana yoon ndax man du ma waxaat mooy ne moytu leen njabootu maam Alaaji Abdoulaye Niass moytu leen njabootu maam Alaaji Abdoulaye Niass moytu leen njabootu maam Alaaji Abdoulaye Niass si sët si doom sët sëtaat koo gis mu sant Niass boo ko jàppee xarit hit xamal ne du sa new la sooy waxtaan moom su waxee lu ëpp ñaanal yàlla fàtte ko bul dem feneen ko nettali soo jëflanteeg moom nga gis mu def dara sa yoon newut ci bul dem feneen ko nettali bu ko arrêté bu ko istati yàqu rek nga jooyoo moom dara du ko jot sa xam ngeen ne Ahmed Cissé mii nii lu ko yàq mooy njabootu Maam Alaaji Abdoulaye Niass sa xam ngeen ne Cheikh Ibrahim doomi maam Baye Alaaji Mahamad Seynu moo ko xalak waaye du ko xalagee mu lafañ du ko xalagee mu muuma du ko xalagee mu tëx du ko xalagee mu ñàkk di yalwaani déedéet da koy xalagee bàyyi ko lamañam muy wax di wax ay gaaf rek fu waxee rek nga téye gémmiñam gi ndax si wax si la posono njabootu maam Alaaji Abdoulaye Niass moytu leen leen ay poson leen boo leen yebee waaye ku leen bëgg duñ la lor ku leen wet duñ la lor way ku leen def morom ku leen def morom yàqu na nga dund nag na nga dox na nga xam nga foog ne yow dox doxle nga dox le xoo yana yàlla musal ñu si yana yàlla dimbale ñu si deret yonent bi sallallahu alayhi wa toog maa ngi ñaan yàlla si barke maamam ñun ñu toog fii yenn bu ñu yàqu yenn bu ñu yàqule lépp lu ñu dégg loo xam ne suñu nopp moo sopp ba dégg ko yenn yàlla jégal lépp luñ gis loo xam ne suñ bët moo soog ba gis ko yal nañu yàlla bu ñu doxee sax te tayu ko yal nañu yàlla jégal ndax suñu xol xas na bëgg a bàyyi yal na buñ yàqooti